aca deuxième quart de finale diggante Ngor Gnilane ak ki nga xam ne moom mooy Robert Ndiaye 2 Ngor Gnilane Robert Ndiaye 2 Ngor Gnilane moo ñu woon gannaaw Robert Ndiaye 2 moom lañ jàkkaar lool Ngor Gnilane ngem boo ngem bulu bula Robert Ndiaye ngem bulu weex arbitre Djilan jël na Robert Kor Djilan Robert Ndiaye Robert ba di ca génn Kor Djilan Robert eh Robert Robert Ndiaye Kor Djilan Robert Ndiaye Robert Ndiaye génn na ca génn na ku ca ba tey ba tey Kor Djilan Robert Ndiaye Kor Djilan Kor Djilan laa ilaha illallah Robert Ndiaye génn na ca Robert Ndiaye bi Robert Ndiaye Kor Djilan Robert Ndiaye Kor Djilan Yeah. <laughs>